الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المدين وعلى آله وأصحابه وخير من ذوي الرضوان وتمكين مبقي جنابنا سانتا يا لجنتين صلى الله عليه وسلم يملي الدنيا وباخ دنيا لا ينور داري ak mbokk leen sant bu baax ci xasida yu am solo yi nga xam ne yëkkati nañ ko fi te di jébbal baax itam kàddu yi nga xam ne moom la ñuy yëkkati doonu xam-xam bu keneen waaye xelu mbokk yi rek moo ko waral waaye ba xam-xam bu yaatu boo xam ne ci la ñuy waral te wax yi itam ci gàttal ak bu tënk dañ koy jëmee rek ci genn fànn. muy fànn boo xam ni jamono laaj na ñu wax bu baax a baax muy euh, woote yi nga xam ni feeñ na bu baax euh, nga xam ni jamono ji day mel ni woote bi bari na fu am na ñu fa ne di woote di xëcc am ci lu ñu woote kon ndaw li nga xam ni dafa jël mbiram jébbal ko yi Khadim war naa xool bu baax woote yooyu di bàyyi xel nan la ciy def ba moom duñ ko mën a lor hmm? te woote yooyu bari na ci woote yoo xam ni yàlla lalu ko yonent bi lalu lalu ko bari na ci woote yoo xam ni ci bakkan la tegu muy ñoo xam ni dañuy jël di dajale ndaw ñi di leen woo loo xam ne suñu biir di tënk duñ leen jaamaloo yàlla duñ leen awloo ci ndigalu salawaatullahi wa salaamu alayhi kon daal li nga xam ne Sëriñ Tuubaa la jox boppam war naa xam nan lay doxe ci woote yu noonu ba ci am ñoo xam ne sax dañuy dajale ay ndaw leen gëmloo ñi dañuy gis seen borom tabaaraka wa taala ndaw lu amul fukki at ak juróom-ñett nga gëmloo ko ni da gis yàlla jëxëran xam nga loolu lu day waar la kon yooyu yëpp ñu ndaw ñu jox suñ bopp sëriñ bi war nañ bàyyi xel bu baax baax te woto yi itam ñaar la am na ñoo xam ni mbubboo wuñ sëriñ bi lañ lañu mbubboo xëy na waaye ci lislaam la ñu woote am ñoo xam ni itam ci biir yoonu Seexul Xadiim ci lañ nekk di woote woote yu demee noonu yoo xam ni dara du ci dëppoon jàngale sëriñ bi euh, li ciy dimbali ndaw li nag mooy mu gëstu bu baax a baax fan la Seexul Xadiim tegoon tànkam te sëriñ Tuubaa fi mu tegoon tànkam mooy ci alquran ak sunna ak li borom xam-xam yi daje ci ay àtteel banaytu taatiya bi itibaahi bi sikki wa sunnati wal ijmaahi foofu la nekkoon mooy tënku ci alquran tënku ci njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa tënku ci li nga xam ni moom la ci borom xam-xam yi jiitu woon rëddoon kon ndaw ni nga xam ni ci sëriñ bi la amee war naa gëstu bu baax ba nga xam ni luñ ko indilee yi mu war a jàngale sëñ bi man mu xam lam cay muccee li ci ëpp boo gëstuwul baax njàngaleem sëñ bi doo mën a mucc ci woote yi faaw mu laal la wala mu laal sa njaboot boo xam ne sàgga na nga leen yar ci yoonu sëriñ Tuubaa ba ñu xëcc te mu naqare la ko doo ko mën a faj te loola dara waru lu ko lu may da leen a tettewul ci yoonu sëriñ bi sëriñ bi li mu woote wax nañ ko yéen bataay yi mooy tawhid bu leer nañ ñi la woote Euh, fekk bu leen màññi la woote tasawuf ji sell muy xaqiqa la woote adon ilal ilahi bi tawhidi loolu la wax adon ilal ilahi bi tawhidi wa ma raaytu an min maidi lillahi adon bi tafaqqoy bila maylin li xayri wa kulli xabila lillahi adon bi tasawufi euh, maha makaarimal axlaaq wa samia kon ñett yooyu la sëriñ bi tënk woon muy tawhid bu leer naññ boo xam ni àndut ak genn bokkaale yàlla dundu sariya bu leer naññ dundu xaqiqa bu leer naññ ndax moom suñu borom jox na ko sarihatal mutahara jox ko xaqiqatal munawara aataani al xaqiqatal munawara man qaarani sarihatal mutahara kon euh, ci ñooñu xam ne ñuy jëm yi woote nañ koy bàyyi xel mooy sëñ bi leeral nañu ko mooy dañoo xamal ni ak sëriñ moom du wuute ak yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi moo tax bu taalib bi toppee ndigal la a jariñu kon ku gis muy woote lu woo lu wuuteeg man bi ci dara moo tax bu taalib a jariñu kon kuñ gis la muy woote laal wu ak alquran kon woote boobee ndaw li da ko war a wàcc ànd ak xelam xalaat bu baax a baax ndax su borom ni mu ñu ko indi mooy ñu jaamu ko wa maa xalaqul jinna wal insa illaa liya'budun bi ñuy bind mu nit ak jinne ngir ñu jaamu ko moo taxoon mu bind ñu kon buñ gisee jëmm joo xam ne xelam boppam la àndal di ñu woo ci loo xam ne ittee boppam la jëm duñu wax yàlla duñu wax yonente bi duñu wax ci sëriñ boppam la wax kon ki ànd ak xel war naa xam ne kii li ma wax mooy la yàlla moo bind te bi ma fàkkee nee na ma ngir ma jaamu ko moo tax ma fàkk te jaamu bi mooy liggéey bi yeneen yëngu yi ci def yëpp dañ ciy mën a dimbandikoo ngir man jaamu bi waaye jaamu bi moo ñu andi ci kaw suuf kon képp ku ñuy topp rek day fekk kooku dañoo mën ci jaamu yàlla bi dañoo gën a xam yàlla gën ñoo jige boromam gën ñoo ragal yàlla ñu topp te ngir mu mën a àggale suñu borom moo tax sëriñ bi wax ni képp koo xam ni jokk nga ci ko àgg ci boroomam faraw nga àgg waaye képp koo xam ni itam jokk nga ci safaan ba muy ko àggul doo mën a àgg fenn wa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi aksin safal kon ginnaaw dañoo bëgg a àgg ci suñu borom soo xool seen jamono ji ni mu demee ku ne di woote ñu waroon ñu seet baax suñu tegaat suñu tànk te mooy fi nga xam ni fi la sëriñ Tuubaa ne woon te ñu seet eh, képp koo xam ne yaa ngi woote dañu gën a rek waxe ci yoonu murid ginnaaw ñun ñi fi ne ñëpp ñu ci ëpp dongay sëriñ bi lañ dañuy seet képp ku muy woote ak ku man di doon ñu seet loolee muy woote ñu dëppale ko ak ñi nga xam ne ñoo yore woon ci kibaaru Seexul Xadim ñoom Cheikh Ibrahima Fatou Ndaamal Daaru ñoom Cheikh Ibrahima Fall ñoom sëñ Man Ndumbe ñoom sëñ Balla Faali Jeng seen doxin yu sell yooyee képp kuy wootee loo xam ne wóotee naan ñoom ñoo xam te itam nekkul lu sant sëriñ bi noonu wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis bind naa bàyyi fi kon layee naa ak yéen bay yay leen kon amatuñ lay te gis nañ ni jaxasoo nañ bu baax ak ñi nga xam ne sëriñ bi yar ndax doomi boppam yi sëriñ Saliou radiyallahu anhu moo ci mujj gis nañ ni mu dundee gis xel koom gi ni mu yare dongo yi kon noonu yi la sëriñ bi bëgg muy sëriñ boo xam ni day dajale aw nitam ci jaamu yàlla topp ndigal suñu borom topp ak Cheikhul Khadim sëriñ bi ku mel noonu la bëgg waaye bëggul koy dajale ay gone di woo ci boppam di leen wax boppam di leen wax yàlla di wax yoon bi sallallahu alayhi wasallam kon nañ ci xalaat bu baax a baax képp koo xam ne sëriñ Tuubaa dafa indi woon ci benn dénkaan dénkaan boo xam ne sëriñ Tuubaa nee na al imaamu Junaydi bi jiite kuréelu tasawuf bi moo ko dénkaane woon sëñ ba wax ci dénkaan bi ni Junaydi dafa waxoon ni su ngeen séenee jë mu feral ko laay ci kaw jaww ji bu mu tax ngeen jug ni da ngeen koy rey wala da ngeen koy topp nee na ngeen di seet bu baax nan la defar ak ndigal yi xool bu baax nan la def ak tere yi su fekkee mi ngi jëfe ndigal yi nam waree su fekkee mi ngi bàyyi tere yi nam waree ni ngeen ko roy am passeport bu rafet ci moom su fekkee nag day xëtt ndigal yi te tere yi di ci moytu dara ngeen maanu ci mbiram loolu lañu suñ tubaa digal waaw kon ki ñuy topp mooy kuy topp ndigal suñu borom te sëriñ Tuubaa suñ bay jaxaata am na lu ñu ci wurus wu sell la waaye dërëm bu sotti la ku amee ab rax yaru la ab raxaboon day taxatoo waaw foo gis ku nekk waaye ma muy foofa ne ca foofa bul gëm yi kooka waaye ma waaye ja dëgg nag du foofu kon war nañoo xam nan la ñuy waayoo ak sëriñ bi mooy nekkal ko ci li mu bëgg ndax nga nekk ndaw lu curu ñu ne la léegi nga gis yàlla wala léegi nàngam nangam te Serigne Touba mi nga xam ne mooy suñu wasila ba mu jógee dëkkmal boromam fële jaar na fa jaar ci tarixa tijaan yi dégg nga masaayixi sayidina jilaani wasaasali maaw tijaan yi nga xam ni ñoom ñëpp ku ci ne lëggéeyal na la ba am sa ngërëm ba mu xam ne ni radiya anni sibtaho jilaani alayhi ridwaanu lati aalaani radiya anni sibtaho abu asan alayhi ridwaanu yuxalidul asan radiyani sëppoo tijaani faaraw kuddali bil madani nga xam ne ñoom ñett ñooñu yëpp muy Cheikh a Tijaani Cheikh Abdou Khadir Jeylaani Abu Hasan ak Sarsali ñun ñëpp nee nañ gërëm nañ ko radiya ani laa wa rasul wa ahlu badrin wa atani suul yàlla akub yonentam ak ahlu badar gërëm nañ ma sama sama aajo faju na kon sonn boobu nga doon sonn sonnal góor yàlla yooyu ba dooga am yi fi boppam ba dooga a taxaw ni kenn nag dootul soog sëriñ léegi ku dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam baada li kulli man lahu maqulu anna wasilatun wa rasul kon noonee mu sonne woon euh, jaar ci jaar jaar yooyu ba doog am lim am yow ndaw li nag nga jóg ñu bëgg laa gëmloo ni da ngay nelaw rek yow am ngërëmu yàlla loolu ay nax la ak waru la ay nax la ak waru la yàlla dañ ciy sonn doog koo am yàlla ak ay sappare mayu ko yàlla liggéey bu métti moo koy maye mag ñi euh, am na ay jamono euh, njot may njot ni ci gànnaar la ci benn béréb bu ñu nekkoon dañ doon mar di xiif bay lekk ñax naat boo yëg leneen sëriñ ba wax mooy ku ci yarwaani rek bay boo nga dem li nga doo ko am nga gis tërbiya gu metti googu ngir rek bëgg am yàlla kon na nga xam bu baax li ñu wute yàlla te moytu yenn woote yi ak yenn gëm-gëm yi nga xam ni dañ koy sol ci suñ bopp yi di ñu ko gëmloo te dara nekk ci lu wér tey tam ko ànd ak xel ku ne luñ la indi rek na nga ko war a def fay calcul analyse ko ba xam ci lan la lay yóbbu sëriñ bi waxoon ni lu nopp nopp ci sam xel wala mu toq ci na nopp xool ko bu baax aw yoon la mu ne xoolal bu baax nag yoon woowu fan la lay jëmi su fekkee luñ la digal la mu ni la la jëmi su fekkee luñ la tere la safaan ba la di jëme sawar su fekkee luñ la diglewul tereluñ la ko nga xam ni àll ba la la jëme kon nañ gëstu bu baax xam daal fi ñuy tegaat suñu tànk mooy Sëriñ Tuubaa ba mu jigéen xam ba mu yàlla nee yàlla da koo teere yee may may ak yow may ko xel mu teere yow kon ñun itam sëriñ bi yee nañu noonu nañu maa ngi leen di yee yéen ñëpp ni bi ma daatee am ngërëm loo xam dootuma ko ñàkk lu ne laa daj coono bu métti nabaatukum maan ala kat biñ badaa lii xaabla an araridan mu abada kon solution bi mooy ñun ñëpp ñu jéem a jàng bu baax xam lañ la sëriñ bëgg ndax moom kat nee na bi sallallahu alayhi wa moo ko rafaatale la ko suñ borom waxoon ni fasdax bi maa tuumar wa aarid ani mushrikin daane ko nag jàngale mboolem murid yi ak képp koo xam ne nangu naa déglu say laabire ci doomi jamono na leen jàngal amarahu sala alayhi lahu fi l aali wa sahbi wa man waalahu bi an yuallima al muridina wa man yaqbalu nusa minhu min ali saman nga xam ni suñ borom yónni saa saa moo ko digal ni ko jàngalal murid yi ak képp koo xam ni nangu naa déglu say laabire donte du am murid sax ndax kooku mooy koo xam ni nangu naa déglu laabire yi sëriñ yi mu nag bokk na ci li nga xam ni loolu yoo xam ni seytaane moo ko def mooy walloo gi mi walloo gannaaw ñu bari ci murid yi wa min madaraati layin ayda asaaru bi baatin li yudi mu fayda fadul muridina an istaallumi li wajhi rabbina al alimil alami nee na loolu pexe la moo xam ne seytaane moo ko def gëmloo ñu bari ci murid yi ni ñu waru leen a jàng waru leen a xam te dañuy wax ni euh, sëñ Mbàkke Abdourahmane da koy di wax maanaam kuy bañ ay téere ku ku nekk ci lu leerul mooy bañ ay téere mm-hmm. waaye ku nekk ci lu leer nañ doo bañ ay téere kon nañ gën a jàngat ba xam luñ toll rek nit ki lim nekk ngir mu mën jariñ bu baax faw mu gës ko bu baax baax wàllum liggéey yi ñuy def moo xam kay def pëlier faw mu jàng ko ba ba mokk doo caa mën a génne dépense doo caa mën a fañu soxlaam kii def commerce ngir mu mën cee jëm ci kanam ak na nga bëggee faw mu jàng ko bu baax baax ginnaaw yëfi àdduna yooyu la jàng doog cee mën a am lañ bëgg kon nag ak si suñ borom mi nga xam ni moom moo ñu bind sàkkuñu kon dañoo war a gëstu bu baax a baax te itam jàng du weef jàng du weef te itam jumtukaay dafa gën a yomb carte mémoire yaa ngi MP4 yaa ngi fi te yépp a ngi fi ordinateur yi lépp a ngi fi kon dafa gën a yomb lu baax dafa gën a yomb waaye ñu bëgg lu baax moo xaw a jafe lu baax yomb na ba nga xam ni mën nañ cee gën a jublu baax kon daal li ñuy soññee mooy ñu gën a gëstu bu baax a baax lan mooy lislaam lan mooy euh, yonent bi salaa kan mooy yonent bi salaam kan mooy suñu kan mooy Cheikhul Xadim ndax loo amul loo inna xaqaayida yi innal fawaayida ala xaqaayidi njëriñ yi ci pas-pas yi la ne faaw nga am pas-pas bu dëgër doo ko mën a jëriñ ci mbir nga am te loo amul euh, te loo amul baatin ba doo ko fonk te loo amul pas-pas ba doo ca bokk waaw kon baatinu mbirum euh, sëriñ bi mënee su koo xam dañuy wax ni sëriñ Tuubaa mënee su koo xam waaye mayees naa gëstu ba xam loo koy toppi sëriñ Tuubaa nekkul ku ñuy xam waaye dañuy gëstu ba xam nan lañ koy toppee waaw ndax bu ko defee moo tax ñu mën a jariñ ci moom dëgg-dëgg njariñ lu gën a yaatu ndax sëriñ bi lépp loo jariñ ci moom boo doxee ci kanam mën ngaa am njariñ lu gën a yaatu ci loolu te itam ñu xam ne ak murit ëppalante ko lu wér la kii ëpp kii murit kii ëpp kii murit kii ëpp murit lu wér la ni ko soxna mi junje ak paate ak murit lu wér la am la ni defukaayu ndox yi mel nga xam la nee ni defukaayu ndox yi mel nga xam ni gis nga paan gis nga tuyoo gis kopp ak gis bron noonu ndox defukaayu ndox yi mel noonu yi lëmbadi di ëppante seen dara di gën a kawe waaye nag mën na yow xoolal na sa xel jëlal sa sa xol ak sa gis-gis aj ko ci fa gën a kawe mooy doon murit saadix sooy def murid defal murid saadiq ba ni dex ni géej ni dégg sore naan deq ba kon itte ji mooy euh, ñu doon ay murid saadiq ni ko suñu blaxa waxoon ay murid lañu te fa euh, fa suñ cee yam dañoo fa ko doon ay murid saadiq ay murid saadiq lañu fa doon te def doon murid saadiq moom nekkul lu yomb sëriñ bi bi mu fi ne ñu néew leen daan wax la daan wax ni murid saadiq lañu ñu ngi nekk li sëñ Mbàkke bu so euh, benn bataaxal bu ko suñ Tuubaa doon bindiloo sëñ Mbàkke bu sa bind turu sëñ eh, jëmm jooje def mu di dun saayo sëñ Tuubaa ni ko yaa ko seere sëñ Mbàkke bu sa dal di koy fab ba nga ko faree sëñ bi waxaatu ko daf ñu kon ne mbindam kon ngeen xam ne murid saarex la jafe la léegi nag ku jóg ñu ni murid saarex la ku jóg ñu ni àgg na te sëñ Moussa Kane na amaana kuñ naa borom nihaaya te fekk boobu amagul bidaaya maanaam dañuy wax ne dafa coppe te départ agul waaw loolu mënta am faaw ñu jëlaat suñu itte kaweel ko ndax itte ju kawe rek moo ñuy mën a àggale fi ñu bëgg a àgg ci Seex al Xadim. wa rahmatullahi taala wa barakaatu.